dellusiwaat fas yéene àndaat ak yéen ci seen juróomeelu waxtaan li nga xam ne ci lañ toll ci waajal li nga xam ne mooy 18 safar fas yéene ci ànd ak yéen ba bari àgg gi ñu boobu yi nga xam ne ci la sëñ bi tukkee woon génn Sénégal dem fi nga xamante ne fii mooy Gabon def fa juróom-ñaari at ba liggéeyal fa boroomam liggéey bu mucc ayib dellu si waat nga xam ne mooy Sénégal ci 1902 noonu lañ leen ko bëgg a toppale ba ni mu demee gànnaar ba ñëw ba dem njëreem kéemtulaayu kàttan di ñaan yàlla na daje ci ngërëmam parce que yéen a ko àndal moom téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy siiwal saa su nekk ci. ak ñoom ci loolu yi nga xam ne mooy histoire boobu ñu topp jàngale woon ko topp ko ba ci ni sëriñ bi jógee Mbàkke Kajoor gannaaw bi ko sallallahu alayhi wa sallam dikkalee ne ko rabbi asaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat wa rabba kulla bi ma yaliqu la mu woo mag ña wax leen ko ndax yonent bi dana ko nanga taxawal yoonu tarbiya nga wax sa gaa yooyu nag ne na nga leen yar ci himma ndax njàngaleen kese boo ci yemee am na koo xam ne ci la mu war a xam lu ko xam ca la sëriñ Tuubaa woo mbooloo ma fa nekkoon ñépp ne nga delluwaat fa nga jóge ndax man amatuma jotum jàngale fa am aw yoon may woote woo xam ne képp ku nangoo sukk sa bëti woom wax bayit yii ba ñu nangul la ko ngay daal di mën a door a sóobu ñooña daal di koy wax ne ko yoon wu dul yoonu tiijaan doo xaajal sëñ ba leen waaw ñu ne ko woowu yoon nu mu tudd ñu ne ko yoonu muriidu laa ku nam ma jëm ci suñ borom rek boo dikkee danaa ànd ak yow bu yóbbu la ñooña daal di dem gisee nag waxtaan ci seen biir ne ah nun kat nu di mën a sóoboo noonu ci lii mu woote ndax am njàngam fi indi woon te am na ko nu bokk ba noppi kon nag am njàng lañ seq nag moom te gis nañ ci moom njàng moo xam ne lépp lu mun nu jàngal day def ci sunu bopp te deesatu ko fàtte bu ne ba xaaju guddi ba suñ xel dañ ca day mel ne dañ ne koo jëneel ci ay kayit ñu di ko jàng loolu moom xam nañ ko ci moom kon nag foofu lañ mën a yàlla moom comme woote na leneen te nee na jàngaleetul kon nañ wéyal ci biir réew mi pour mën a jàngee te tàggatoo moom ci tàggatoo ko rek ñooñu daal di juboo ci loolu ñëw ci sëñ bi ne ko ñun kat danoo bëgg nga ñaanal na delluwaat ndax danoo bëgg wéyal sunum njàng ba ci kanam ñooñu daal di jóg dem ñeneen ñi ci desit daal di jaayante ànd ak moom ca woote boobee. bokk na ci ña ñëw sëriñ Adama Guèye ñëw na ak ki nga xam ne mooy sëñ Ibrahima Sall Njaañ ak ki nga xam ne mooy sëñ Massamba Diop Sam ak sëriñ Darou Assane Ndiaye ak ki nga xam ne mooy sëñ Abdourahmane Lo ñooñu jot nañoo toog ci ña ko jotoon a waaye ñu jot a jébbu la moom sëñ Adama Guèye sëñ Ibrahima Sall Njaañ sëñ Massamba Diop Sam sëñ Dame Abdourahmane Lo booba sëñ Abdourahmane Lo mbaaxal la ko fekkoon mu dem ko waaye bu mu dikkee ca gaaw ba joxe na boppam ba sëñ Tuubaa nangu ko bi muy ñëw Mbàkke Bawol it moo moom moo ànd bi muy sanc Daaru Salaam it moom ñoom ñoo ànd sëriñ bi di tàmbali di tarbiya gaayam yooyu nga xam ne ñoo nangu woon a topp ci di leen xiifloo ak di leen marloo ngir ñu mën a xam kan mooy yàlla ngir ñu mën a jaamu yàlla ngir ñu mën a topp yàlla loolu tax nag ñépp mujj ko maanaam sopp di déglu ay ndigalam saa su nekk waaye noonu mu amee ñu ko sopp nag ni la amee yépp ñoo xamante ni si noonu lañ ko noonoon wala iyaasu billaah loola tax na bi mu ñëwee Mbàkke Bawal ba yàlla dogal diir bi mu fi nekk jàkke ji mu daan jiitee ji mu daan jullee magi taalibe yi dañoo xëy benn bis ne tey mayatu kenn kuy taxaw di jiite Sëriñ Tuubaa loola nag indiwu na ak féewaloo seen diggante ñooña ba yàlla dogal ñooña yëpp daal di koy noonoo tàmbali di lor taalibe yi nga xam ne ay taalibeem la lor bu méttee méttee métti ba loola amee tamit gis nañ ne noonoo gi li ko waral mooy gis nañ ne taalibe yi ñu yoroon yëpp ñu ngi bàyyi ci ñoom di dem ci Sëriñ Tuubaa gis nañ ne tamit dara ji ki ko yàlla jox dafa mel na lu nëbb seeni dara waaye lépp nag day yàlla kese loola nag tax mu xajootu ñoom moom di jël taalibe yi di leen boom di leen lor ba loola tax Sëriñ Tuubaa jóge fi nga xam ne mooy Mbàkke Bawal dem ci penku Mbàkke Bawal daal di fay got ak dëkk ci atum 1304 yemoo 1886 ci gàddaayu Yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dëkk boobu mooy Daaru Salaam ba mu demee nag ba nga xamee ne gor na ko tàmbali dafa tarbiya dëkk bi ban koy gor sëñ Abdourahmane Lo ca la bokk Cheikh Ibrahima Fall ca la bokk waaye wax nañ ne sëñ bi dafa toog ba benn bis mu jékki-jékki rek génn dem kenn xamatul fu mu ñu daal di koy wër yi ba gis ko bokk na ci ñi ko wër ba gis ko sëñ Maam Mor Samb nga xamee ne wër na ko ba gis ko ba indiwaat ko ci kër gi jamono jooju wax nañ ne am na ci ay jëmm yooyu bu ñu ko mosaan gis ci àll bi ni kawar gi daal saqe ak yooyu dañuy jàpp ne kii dafa ànd ak mu waaye xamoon nañ ne doomi seen muraad sali la ba tax ñu naan kii kat mel na ne ànd ak mu xelam bu ñu ko seen di daw li tax ñoo xam ne ànd naa xelam nag mooy benn bi dafa dañ koo gis di daw ba am te ku daan ñëw romb ko jàll ñoo xam ne kon kii kat bu xel mi nekkul ci moom it mel na ne du nekk di sonalaate ak di def nit ñi ay teg nit ñi ay fitna loola nag tax yoon di ko sëñ Mor Sam indee ba mu xëyee dafa defaat noonu mu defoon daal di demati ndax moom dawul jaxasoo ak nit ñi ngir bari wax yi ñu bari ak soxna yi ñu tàmbalee di takk jaxasoo di tàmbalee di am moo tax moom daal di xëyaat daal di wuti ca penku Mbàkke Bawol ci atum 1304 ci hijriya yemoo 1886 daal di dem ba mbooloo mi wërati ko ba fekk ko mu daal leen di wax ne leen fii de ah, ci baatu wolof tudd tudd nag mu jàmm del laa ko tudde waaye bañ ko goree ba noppi nag la ko tuddee Daaru Salaam muy dëkk bi dëkk gor ci kaw suuf gannaaw bi mu jógee Mbàkke Kajoor ba ñëw ba bawal ba nekk fa diir boobee mu fa nekk taalibe bi di ko fekk foofee gannaaw bi nga xam ne lor ji nga koy doon lor jeex na ci Mbàkke wala mu wàññi ñu commencé di yokk di ko commencé di bëgg di ko gën di commencé di jege sëñ ba di tàmbali di def ci ñoom it ay jikko yu rafet waaye nag bi ñu demee ba tàmbali nag di dee ci ay soxna mu gis ne nit ñaa ngi tàmbali di yokk te ak tarbiya mënta ànd ak bu la daal di jógewaat foofu yi nga xamante ne sii mooy Mbàkke Bawol wala Daaru Salaam ci atum 1315 ca fin ba dugg 1306 yamoon ci 1888 muy boobu Cheikh Amadou Moustapha gane jamono daal di dem ci càmmooyu Daaru Salaam daal di fay dëkk muy dëkk boobu nga xam ne mooy Touba te loolu mi ngi génn ci fi nga xam ne mooy Daaru tabaski gi gannaaw ba ñu ko tabaskee ba noppi ca juróomi fan yi wax nañ ne ci la génn rek def na ne mu daan def ban tool yi toll ci ñaar fukki fan wala fukki fan ak juróom gisuñu ko ci la mag ña takkatoo ba mat fukki nit ak juróom dem di ko wëri ci àll boobu nga xam ne mooy Tuubaa nga xam ne suñu borom wan ne ko fii mooy sa ba yàlla dogalee sëriñ Tuubaa daal di ñëw Tuubaa daal di koy tàmbale di gor waaye fekk na boobu ci genn bépp lañ ko fekk mu toog te mbaar moo ko nekkit moo ko mbaaraloon bopp la kon wéet na lool ci Touba ci kenn koo xam ne si jàpp nga ne am nga cër ci Touba ku dul sëñ Touba ko mag ñu waree ànd ak tukkulóor boobu ñuy wax buubu ja dajeeg moom mu doon ab rëbbu nekk Mbàkke Bawol ba yàlla dogal mu laaj leen lu ngeen di dox nga xamal ko nekk ku tedd keenu réer ca Dëru Salaam boobu ba léegi nag koy war gisuñu ko xamal leen ne leen am na ku mu gis luy nuroo nit lu toog ci taatu garab fukki nit ak juróom yooyu ànd ak moom ba ñëw fekk ko mu toog mu ne leen ma nga ne daal di ñoom it ñu daal di raam ba àgg ca moom toogu biir biñ la gannaaw biñ ko nuyoo sëñ ba fay leen daal ree ne leen xanaa jaaxle woon ngir ñu ne ko jaaxle woon nañ trop ne fii laa doon war fii la ma suñu boromam digaloon ne naa ko war waaye la ko jiitu it waxoon na sëñ Massamba Diop Sam ca Dëru Salaam yónni woon ko fi barab waaye xamaloon na ko ne it na ko bis danañ ànd baal yow dem ci baytul laahil haraam dem siyaare ji ko siyaare ji barabu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ba mu ko waxee loolu it ci jamono jooju mu yónni ko bi mu ko yónnee bi mu datal ñoom fekk na Serigne Touba gémm Dëru Salaam ci noonu ñu leen ko nettalee sëñ Massamba Diop Sam it daal di ñëw daal di toog di déglu li jamono jooju nga xam ne buubu ja mi ngi bu foofu fekkoon na sëñ Tuubaa mu toog foofu moom képp ba yàlla dogal mu ñëw nuyoo moom mu xamal ko ne ko ndax xam nga sama dëkk bay Daaru Salaam mu ne ko waaw mu ne ko damaa bëgg nga dem fa te boo demee bu leen xamal ne maa fii waaye boo demee nga wool ma ki nga xam ne moom lañuy ñuy wax ma Samba Diop Samb ne ko na fekk fii nga xam ne wax nañ ne buubu ja bi muy dem daf doon dammatee garab yi mu daan romb muy ngeer yi ak njigis yi ngir bu wàññi ko mën a xam fi mu doon jaar bi mu demee daal di gis sëñ Masamba Diop Samb woo ko sëñ Masamba Diop ànd ak boobu dañu ñëw fekk Sëriñ Tuubaa ci foofu mu toog bi mu ko fekkee mu toog ba nuyoo mu wax ko ne ko dem naa ca la ma yónnee woon ba noppi ca la ko sëñ Tuubaa wax ne ko ndax yow na Màkka ma la doon wax jekk na ci mu ne ko aw Mbàkke fi ne kay jekk naa ci la ko sëñ ba xamal ne ne ko am ngànt ndax li tax ma am ngànt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd naag malaayika yi ak saabatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati barab boobu indil ma ko fii inna baytallahi al-haram tarfa'u malaayikatu ila Tuuba wa fiihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon des na tuuti lépp lu ñuy atteete ci àddina ci lislaam barab bii ma toog fi lañ koy atteete booba am ndigis akum ñax naa lu tàng ak ay boofiti nag moo fa nekk ak ay saawu comme ni ko sëñ bi waxee ci jamono jooju sëñ bi waxee loolu nee na ñaar nit fekk nañ ma fa waaye nag lu nit ñuy doxal seen tànk loolu ci baatin la wax ne bi ñu ma fekkee kenn ki adduna rek moo ko yittee la bi mu ñëwee tamit yàlla may na ma ko ba mu doy te doyuma ko dara ma jox ko ki ci desit àllaaxira rek ko yitteelu moom tamit yàlla may na ma ko ku nangoo toog ci man ma di la digal di la tere comme ni ko ñoo ñu mu defoon ca Mbàkke Kajoor da nga ko am waaye nag képp koo xam ne addinaa la yor ba nga am ko bu ëllëgee tamit da nga xam ne lay am alaxira jotewu ma ci ak yow ndax li ma ne woon fii nga soxla jox naa la ko wàccoo na ma ak yow moo tax ku jóg tudd sëñ Tuubaa ku jóg jox sëñ Tuubaa mbir mi noonu ndax dafa boole ah addina ak alaxira waaye doyul ngir ñi koy topp te sopp ci moom àddina te bëggul leen a tas seen yaakaar moo tax mu dem ko jox bi mag ñi ñëwee ba toog sëriñ bi neen fii laa doon wër loolu mi ngi toll awwala yawmin min muharramin moo tax waxtaan yi ñuy defit ci bis boobu lañ ko bëgg a tàmbali ci bis boobu it lañ ko tàmbali ah, di ci waxtaan ndax barkeeloo ko ci lool sëñ bi xamal leen leen fii la ma suñu borom doyal mooy dëkk bi ma war a nekk am na ci espace bu jaamu yàlla bu yàgg boo xam ne li mu bëgg a def lépp da ko ci def waaye suñu borom nag muyu ko temps mu ca dëkk ndax juróom la ko yàlla may na ko nag moom war a dëkk muy boobu bi mu fa nekk ak bi mu fa jógee di 1895 yàlla dogal sëñ ba sant leen na nañ ko fa defaral kër ñu daal di fëttiku tàmbali jublu ca kër ga sëñ ba rëddal leen kër ga kër gi mi ngi guddee woon juróom-ñeent fukki mètre juróom-benn fukki mètre yaatoo juróom-ñeent fukki mètre 60 sur 90 90 sur 60 ñu liggéey ko ci diiru juróom-benn weer jàpp juróom-ñaar ba mu àggee ci la daal di toxalaat njaboot gi wax li ne leen nañ leen dem Daaru Salaam kon xam naa ne dañuy taxaw ci foofu su ko defee ñu daal di mën a sumb juróom-benneelu waxtaan wi. ngir ñu mën a indi ci xew-xew boobu lu yaatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu